jërë ngeen jëf mbokk internet yi topp Dakar live saa su nekk ñu ngi leen di ziar bu baax a baax mbégte la dalalaat Cheikh Ahmed Khalifa Niass borom résultat yi gis naa ni nag gëj nañ koo gis loolu ci li nga xam ne moom moo di rek Dakar live TV li ko waral gàmm yu am solo yi nga xam ne tegoon nañ ko ci ay loxoom mu doon wër nag ci diwaanu Sénégal doon ko amal lépp nag dinañ leen ko dëgtal waaye rek fi ñuy dooree dañ lay daal di nuyu rek bu baax a baax Cheikh Ahmed borom résultat yi bu ko defee rek ñu daal di dugg ci waxtaan wi. alhamdulilah. alhamdulilahi alladi xalaqa alsamawati wal ard mm-hmm. wa jaala zulumaat wa nuur summa alladina kafaru bi rabbihim yaadiluun mbokki jullit yi mbokk yi safoo di topp site bu mag bii di Dakar Live TV mm-hmm. yen ñëpp fu ngeen man di nekk ak nu ngeen fa man di nekkee rek moo xam ñu nekk ci biir réew mi muy senegal moo xam ñu nekk ci biti réew yéen ñëpp maa ngi leen fay fekk di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ceen bisimilah soxna Aji. alors fi ñuy dooree waxtaan wi nag mbokk yi leen fàttali tey dinañ waxtaan ci lu jëm ci wàllub Ousmane Sonko ana bi ñu ko jàppee kaddu yi mu ci waxoon bari barikat yi nga xam ne euh, defoon nañ ko ci buntu kër Ousmane Sonko lépp waxoon na ko waxoon na ne tamit jamono ji nga xamante ni euh, dinañ lever li nga xam ne moom moo di barrières yi loolu lépp nag dinañ ci dëkkaat ak yéen ak VAR bi nga xamante ni incha allah fas yéene nañ leen koo dëgtal waaye euh, ma bëggee ñu dooree waxtaan wi bokk na ci gàmm bi nga xamante ni wax dëgg yàlla am na solo lool jamono ji mi ngi def buzz ci réew bu Sénégal Sénégal ñu bëggoon a xam rek tey ñan ñoo la wóolu ba teg sa loxo gàmm yu am solo yooyu waaye tamit conférence bu am solo bi nga xam ne yaa ngi ko doon feggoo ak ña ko doon fekkee. waaw alhamdulilahi soxna aji mhm. ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam euh, di leen waat beneen yoon yéen tamit di leen ñaanal jàmm ñu lay fay euh, di wax ne ñun euh, duñ bu xaaba waaye tamit duñ sëriñu internet bu late ñun dafa am ñu ñuy yaakaar ñoo xam ne ginnaaw bañ gëmee yàlla gëm yonent bi gëm seeni ñaari waajur ñin lañ ci teg mooy maa toog ñu toog ma jox leen tariixa tiijaan léegi chaque année nag waxtu wi bu jotee ñenn ci ñooñu dañ may woo ma dafa leen gàmmu ci seeni dëkk yoo xam ne mbooloo mu bari dañuy daje incha allah ñi dafa leen ñaax leen ci tariixa bi ñaax leen ci diine ji ñi gën a defar seen pas-pas bi loolu amee tamit wax dëgg yàlla bi ñu fa demee am na message buñ lancé. message bi mooy lan. mooy tolluwaayu réew mi ndax ñëpp gis xam nañ lu xew ci réew mi muy usmaan Sonko jaay doole bi ñu ko jaay doole mu métti ñëpp métti képp kuy sénégalais nga xam ne fa tabaarakallaaw buñ ma toppee ci ginnaaw waxoon naa la ne aji barakaate yi li ko njëkk sax mooy bi Macky Sall ne du dem du dem troisième mandat ñëw nga fii ma ne la lépp ay pexe la te pexe yëpp muy teg nag ci kenn la jëm mooy Ousmane sonk loolu passé ñi toog ne ñu ne dindi na barakaat yi defe naa ne jour boobu ngeen ñëwaat fii ma ne leen ba léegi ba léegi ba léegi pexe yi da dañagut mm. li tax mooy fekk jëlut usmaan Sonko ba yóbbu ko ci koso gi. Mm-hmm. Macky du am jàmm. alors foofu dinañ fa ñëw dama bëgg rek ñu taxawagum jamono ji ci li nga xam ne moom moo di gàmm gi. appel jëmale ko ci li xew ñëpp gis nañ ko kenn ñemewut a wax ñenn ñi jox nañ leen xaalis ba ñemewuñ a wax te waxut fii ci ni Macky Sall yore réew mii ëllëg boo jàkkaaroo sa borom nga wax muy kilifa diine muy kilifa aada Sénégal génn sax léegi ba ba bëgg wax ne man Sénégal laa dëkk dara jaw ngir injustice bu bon bu fi nekk ñu ne réew mii di lakkante réew mii di taal ay kër réew mii di taal ay oto réew mii di taal ay doomu aadama foofu la Serigne Touba tëdd foofu la El Hadj Abdoulaye Niass tëdd foofu la Sidi Hadji Malick tëdd nga xam ne Serigne ci Sénégal wàllu yàlla yi ci Sénégal boo leen doon li mënoo a takk ñi bëgg xoolaan seetaan ba Macky Sall yàq réew li yàq réew mi Macky Sall la yàq mi mënta paase nga topp koo xam ne boo ko bàyyee réew mi nekk ci jàmm nga topp koo xam ne yaa ngi ko topp ñetti at heure boo ko bàyyee heure boo tegee dossier mi ci suuf réew mi ne teg kenn ku ne mën a xëy dem liggéey nga ne doo ko bàyyi kon ko yaa bëgg réew mi bu ngeen ànduñu ak benn politicien Macky Sall bi mu soxlaa réew mi dafa ñëw suñu kër wàcc na cëpp sama papa ne ko ah man de sa morom yi fi ñëw yëpp nga bokk ñoom géewu làmb bi ñenn ñi dama leen gis ñu ñëw jub pale dëppaat waaye yow dama la gis nga ñëw dugg pale directement Macky Sall xoli ko bëri ne ko ah, ah mu ne ko waaw mu ne ko yow moom bu la neexee nga dëppaat dem Dakar tëdd nelaw bàyyi gars yi campagne ñun liñ ànd ak mooy suñu tur suñu tur yàlla yi ñu maam jox ak ismulaay lax sax mais ànduñu ak benn mais lii xew ci réew mi ku ci waxul te man cee wax waxoo ci ëllëg boo jàkkaarloo sa borom nga am gàcce sax nag loo ci xamul bépp pexe bu ñu teg ñoom jëmale ko ci saw waa ji fii mu Ousmane Sonko ya yàlla yàlla yàlla weer la. day ngay xool lu mat ñetti fan yoo xam ne kenn mënta am connexion. te am na ñoo xam ne seen dépasse pour lu seen njaboot lekk ci connexion bi lay jaar. wii fi doxut kenn ñi ubbi sax loolu yëpp ñu nar koo bàyyi mu law ci réew mi. te ku wax ñu ne dañ la jàpp dañ la tëj. nguur yàlla moo koy joxe qul illahumma malikal mulki tuutil mulka man tasha tuutil ah, dimbale leen moom fëtt de waaw tuutil mulka man tasha wa tanzil mi man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu nguur yàlla moo koy joxe te kum ne da nga fal kenn tere fal day topp ah waaye di na ah, waaye di kay mënta paase lu Macky Sall waaye nag ah bu jàppee ne lii dana ci am ndam day nax bopp parce que keroog bu verdict bi jógee xolu Sénégal yëpp ànd métti moo xam nga ànd ak sa waa ji moo xam nga ñàkk ànd ak moom parce que jaay doole gi ñu koy def moo métti askan bi ci loo xam ne boo toppee tànk yi ba ci biir lépp ay tappale képp la ñun nag mënuñu xeex waaye am nañ kurus am nañ ismu laay laxsam dana ñande dana ñande ñaan. alors gàmm gi dañu wax ni wax dëgg yàlla li tax mu gën a def buzz euh, wala ci vidéo yi gën a def buzz bokk na ci li nga doon lancé ci ay message doon dal ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall di ko def ci régions yi ak villages yi lan moo waral nga opté combat boobu. waaw loolu nag buñ ci nekkee lu ñu naan euh, xandoor bu dag bu dammee ci waar dafa naan a jaanam wàcc na ñun ko xam suñ maam di Lamine nga xam ne dafa jëloon askanam teg fële jël mbubam kilifam teg fële. di xeexal askan wi ba yàlla xëy jël bakkanam kanam. waaw muy Sidi Mouhamadul Amin. Mm. nga xam ne defe naa ne bi mu fi nekkee comme nii rek da daan wax lu ñëwagut gaa yi naan kii dafa dof wala dafa bëgg a yee finna wala dafa nàngam fekk lii senegal di dundee nii jamono comme dund gi métti gi ñi nekk nii waxoon na ko avant tey ñëpp te teg nañ ci seen bët. Mm-hmm. kon ñun lépp lu ñu wax soxna aji teguñ ko suñ naf su bakkan mais lu ñuy yàlla xamal la. man dama judd ci pays xam-xam juddu pays wilaaya waaye duñ toog rek siñ mbir di dox ñi ne duñ wax wala duñ artu ci lu jëm ci réew mi ni muy doxee nii. te defe naa ne ku waxut fii moo xam ngay kilifa man a wax sa kàddu sori waxoo bi boo jàkkaloo sa borom da nga am jafe-jafe. su ma déggee da nga doon campagne ci say conférence. non campagne sax parce que ñun ànduñu ak benn politicien. mu mu xam Macky Sall ak keneen ku dul Macky Sall. Hmm. yaakaaruma ci kenn yaa ngi dégg. mais na ku gis dëgg wax ko xulil xaq walaw kaana murran donte dañ lay rey na nga wax dëgg li ma wax nag lu ma gis la muy muy muy doxalin boo xam ne wu ma métti la te defe naa ne métti na képp kuy jullit. am nga ay retour ci conférence bi nga doon def ci askan wi nga doon daje. man toujours ma am ay retour aji man moom man moom man moom toujours ma am mm. parce que lépp lu ma wax rek. ad euh, ñi may safoo danañ ci teg seen bët. moo tax ñaari bis yooyu bu amee. Mm. ñu bëri dañ may woo sëñ bi li nga fi waxoon nangama nangam. mais loolu yëpp du suñu njàmbaar. sant yàlla képp lañ ci biir li nga ci waxoon boobu la daal di dem seetaani vaar ci kàddu yi nga xam ne yëkkati woon nga ko ci barricade yi nga ne euh, waxoon nga ko ci rek euh, la nga xam ne la ñu tegoon Ousmane Sonko daal di koy yëkkati waxoon nga ni euh, ginnaaw loolu bu ñu ko yëkkatee dana am lu ciy tegu muy kaso nañ seetaani vidéo yi ñëwaat ñaari ati kaso ci ay ak amande bi nga xamante ne ànd ko ci digganteem ak Adji Sarr tey ci ci wàllub xam-xam ndax dafa am lu muy tekki barricade yi nga xam ne yëkkati nañ ko waaw waxoon naa ko fii dama koy wax baamtuwaat rek loolu ay pexe la rek keroog bi ñu ne daat nañu Ousmane Sonko ñaari ati kaso la ma benn sit seet si ma ne leen pexe yi dafa doog door muy pexe yu ñu koy defal Ousmane Sonko fekk 2024 aji pexe ci kaw pexe pexe ci kaw pexe barakaat yi ñi dindi dafa am lu ko waral mais tim am na état bi lu ñuy waajal loo xam ne euh, balaa yàgg da nga dégg dara de hmm. parce Euh, ginnaaw barakaati bi jóg na Ousmane Sonko dina doxe ay activité am te foofu nag la wax ji nekk parce que nit ki aj aji boo ko tëjee na da koo tëj deux ans ba àdduna sosoo ba léegi mosoo gis kuñ tëj këram yaa ngi dégg benn dañ lay tëj yóbbu la fañ la war a tëjee tëj la fa wa illaa ñi bàyyi la sa liberté ngay doxi say soxla Ousmane Sonko ne ginnaaw tijji nañ barakaate yi dina doxi soxlaam léegi na loolu après lu ci lu ciy xew foofu la wax ji ne moo tax daal te te réew mi sax day yëngu parce que ruumul am na lu ñuy ruumanaat ci suuf li fi xewoon mën na fee xewaat parce que aji benn mbir buñ ko baxoon rek réew mi ne ci jàmm mooy justice biñ teg ci kaw Ousmane Sonko te du dëgg du yoon loolu wallahi azim buñ konoon buñ ko bawoon bàyyi ko liberteem am konoon la ñuy xam ne Sénégal jàmm rek fi war a am mm. waaye feeg bawuñ loolu feeg ñi ngi koy tegal ay ndëgg sarax Sénégal du jóg ci jafe-jafe. dañu dégg ci sa ay kàddu nga wax ni tey yëkkati nañ barikat yi am na lu ñuy waajal lu ñuy waajal lu mel nan. waaw xam nga nguur gi moom ñëpp d'accord nañ ne chaque jour bu ñuy xëy ñi nga xëy ci Ousmane Sonko ngir lu ko faagaagal pour lu ko éliminer. fan nga teg ni tey nguur gi saa suñu xëyee ñi ngi wër luy faagaagal Ousmane Sonko loolu foo ko teg man lépp lu war a xew yàlla daf ma koy wan man du ma n'importe qui aji man yàlla daf may wan kon du waxee sama naf su bakkan alors ñoo ko seetaanandoo ñoo ko gisandoo yaakaar naa ni VAR lii lee tax mu daal di am solo Cheikh Ahmed bi ngay wax kàddu yi ci lan nga ko tegoon. waaw man nag du may wax dara. aji loo xam ne dama koy teg sama naf su bakkan mhm, dafay baax nag nga toog toog ci suuf ndax <laughs> yaakaar naa ni vaar képp kuñ koy def bu fekkee mbir ma dafa daal tombee rek jaadu na nga yéeg wàcc toog ci suuf nag jàkkaarloog askan wi dëgg la ayca man bi ma koy wax boobu yàgg ne nee naa man du ma sëriñu vaar képp kuy xaar yóbbu ma vaar ci naka su noonu mhm. bee boo nga lem say téléphone ak say connexion nga nga nga teg ko. moo waral parce que du ma sëriñu vaar. lépp lu may wax nag du ma toog lekk ba suur wala naan ba màndi rek di wax. non lépp lu may wax lu ma gis la lu may teg sama bët. lu la yàlla wan lu ma yàlla wan. Mm. xam nga métier boo gis war nañ cee nangul doomu aadama yi. guddi yi ñu toll. ñaan yàlla dafa jot. askanu Sénégal nangul ma. jot na nag. xam ne lii ma nekk tey dama cee fekkoon samay baay di góorgóorlu ba yàlla di ma ci may résultat. ndono la ak jàng. waaw kañ. d'accord beneen bi tamit ma am ci ndigal ci sama papa mi nga xam ne moo ma jox tarixa tijaan ma nekk ci di faj soxla yi. Mhm. saahiran aw baatina mais eh, yooyu yëpp amul solo li ci am solo mooy waxoon nañ ko yàlla mi dogal dogal na nañ ñu nam ñu ko wane woon noonu la amee. fan nga tegoon ni Ousmane Sonko faa mu dugg kaso. waaw loolu te nga njëkk ko fee wax te yow rek yaa ñeme woon wax ko ci jamono jooju. <laughs> aji sant yàlla la yàlla moom mën na lépp. sant yàlla du sama njàmbaar du sama dara mais man daal duma waxee sama nafsu bakkan moom bokk maa ñi nga xam ne dañuy toore noonu man lépp lu may wax lu ma am source yu leer la mm. waaw d'accord mm. alors dañuy ñëw ci anam bi ñu jàppee Ousmane Sonko ak li nu ko jàppee wax dëgg yàlla yàgg nga fee taxaw di wax ci kàddu jëmale ci ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko sa jàngat ci anam bi ñu ko jàppee waaw anam bi ñu ko jàppee mu métti ñëpp mm. defe naa ne keroog bi verdict bi jógee ñi ne jël nañ usmaan Sonko yóbbu ko mandat dépôt xaw ma luñ ko xaw ma si xaw ma fi ñu wax ne foofu lañ ko def defe naa ne keroog jaww ji yëg na ko defe naa képp kuy senegale sa xol keroog yëngu na. jaww ji yëg na ko ci naka. ah ñëpp gis nañ nu mel jaww ji nu mu niisee nu mu ànd ak dal. Ah. ñëpp yëpp. kenn ku ci nekk ku la wax ak ku la waxut. waaye ñëpp sax seen xol ya neexut. jour sëñ bi nag jaww ji niis rek mënoo cee wax ne jaww ji tey di yëg na jàppee Ousmane Sonko. <laughs> waaw dafa am ci nit ñoo xam ne. dafa am ci nit ñi ñoo xam ah. yàlla ci boppam daf leen rus. nit ñooñu Ousmane Sonko daf cee bokk. da nga bëgg a wax ni Ousmane Sonko wàlliwu la comme ñenn ñi ni ñu koy waxee. Ousmane Sonko may yàlla moo nekk ci moom lu lu nekkul ci benn politicien. bu nekk ci réew mi fii. Mm. may gi Ousmane Sonko ne may gi yàlla daf ci Ousmane dafa ko si kenn fii. Mm. moo leen gën a ragal yàlla. Mm. moo leen gën a gëm yàlla aussi. gëm yàlla gi moom bu ma la ko wax war nga ko gëm. parce que lii ñu koy teg keneen kum doonoon defe naa ne ba nga onko du léegi waaye nag toujours rek heure bu génnee mi ngi gëm ne nattu yii nattu yu ko yàlla teg la te képp ku yàlla bëgg moo xam yonentu ak ko man di doon balaa yàlla di lay ràngal yenn garaad yi dana teg nattu hmm. te nag état bi buñ foogee ne buñ foogee ne dañuy yàqal Ousmane Sonko dañ koy defaral de. Hmm. Mhm. alors menaces yi ngeen doon def ak li ngeen li ngeen doon wax ni tey eh, xale yi Ousmane Sonko la ñu àndal Ousmane Sonko la ñu àndal gis nañu bi ñu jàppee Ousmane Sonko tekk ak tekkaaral bi nga xam ne ndaw ñi def nañ ko ñenn ci ñu ñuy woowee Mara Pastef yi ñoom dañoo wax ni eh, nguur gi dafa liggéey askan bi ndax bokk nga ci ñuy wax kàddu yooyu. waaw Ousmane Sonko nag ginnaaw yàlla bu bu yegsee fii ndawu Sénégal ñoo ko fi yegsee. lu leer parce que tey nag eh, dëgg nag nañ ko wax parce que Ousmane Sonko bu taxutoon na ndaw ñi koro defe naa ne bañ ko ree du léegi mais heure buñ ko yëkkati yëkkatiwaan dossier am ndaw ñi ñooy taxaw pare pour joxe seen bakkan ba yàlla dogaloon ñu génn ci mais soo Sonko ci boppam mag magi Sénégalais yi muy yenn kilifa diine yi. Mhm. ñi nga xam ne dañ leen ngeree ak alal ñoo ko seetaan. yenn politiciens yu gëmul dara gëmuñ seen askan ñoom itam bokk ci xeex bi. da nga cee ndaw ñi jamono ji. da ah nga cee génne ndaw ñi moom man aw ma benn kàddu bu may yëkk ndax seen lépp joxe nañ ko. Mm. mais mbir xeex ñaar la. benn boo mënee xeex ci kurus nga xeex ci kurus boo mënta xeex ci kurus nga xeex ci wax sa askan dégg la mën a jëfee li ngay wax. Mm. te réew mi kilifa diine dafay am doole. tey ñoom ñii ne fi toogal fi seen maam yi kenn bu génnoon defee état xamal ko ne ko li ngay nekk du dégg du yoon mbir mi dana demee neneen mais kilifa diine ndax ndaw ñi tey wala ñenn ci ndaw ñi jox nañ leen cër ndax wax dëgg yàlla nag bu ñu ne eh, kilifa diine yi fi nekk nañuy wax nañuy wax te saa su ne ndaw ñi di jàll ay baat suñu ay kilifa diine yaakaar naa ni jot na ñoom itam ñu teesee ni la waaw jàll baat bi nag boo xoolee defe naa ne du ma ne sax ñoo ko def seen bopp mais dafa am foo xam ne mbir bu fa tollee dafay baax nga jël sa responsabilité bopp responsabilité mooy lan farak parce que mooy taxaw carrément wan nguur gi fi ne ne ko nekkoo ci dëgg nekkoo ci yoon lii nga pare pour teg askan wi mu jugee ci benn nit képp yaa ngi dégg. Mm-hmm. défendre ko rek. Mm. comme nu suñ maam suñ maam El Hadj Ibrahima Niass defoon 2012 bi Abdoulaye Wade bëgg yàq réew mi. Mm-hmm. xeex yi bari bakkan yi di root dafa taxaw. Ah. jamono jooju kenn ñi mu ta wax. mu mm-hmm. taxaw jël responsabilité boppam. défier ablaay Wade xamal ko ne ko sa nguur yeex na bul yàq réew mi. dégg naa ba loolu amee Abdoulaye Wade boko boko ay ay maletu xaalis. yóbbul ko. Mhm. pour mu noppi wala mu bàyyi la muy wax. dégg naa moo wax ñam ña ko indoon ne bu ngeen bu ngeen taxawee tuuti ma dolli leen leneen ngeen yóbbul ko. Mhm. kon loolu tey dañ koo soxla koo xam ne dafay taxaw ngir askanam taxaw ngir réew mi dal nekk ci jàmm. loolu buñ ko amoon rek ji jeex. ñu ñëw ci grève de bi nga xam ne Ousmane ko mi ñu koy amal ci kaso bi ndax ànd nga ci grève de la faim bi. waaw xam nga àdduna nag moom lépp loo gis du ma ne ànd naa ci du ma ne ànduma ci. Mm. parce que li tax mu def ko loolu moom xañ na moo ko xam parce que Ousmane Sonko fi mu jugee aji moo metti mm. Ousmane Sonko ndëgg sarax yuñ ko yàgg a tegal yàlla di ko ciy génne ndëgg sarax yu méttee méttee. fi mu jaar fi mu jaar ci ay politiciens yëpp jaar. opposants yu bari foofu lañ jaar. fi Ousmane Sonko jaar amul benn politicien bu fa mos a jaar ci man li may li ma seetlu li ma xam gisuma ko. Mm-hmm. Ousmane Sonko natt yu ko yàlla teg nii. gisuma benn politicien bu ko yàlla teg. Mm. te kum ko fi tegoon tamit dana demee neneen. Mm. moo bëgg nguur loolu la yi wax. waaw nguur nag yombut nguur moom nguur moom defe naa ne. ah boo ko bëggee nat yàlla dana la nattoo nu ne nat eh, waaye nag xam naa ne. Mm. ah mbir mi fi mu mujj mooy ci jàmm ak salaam ak neex. ci neex comme comme comme mbégte daal lay mujjee. ak ndax dana neex ndax 2024 li ci des jamono ji bareetul. aji képp ku yàlla bind sa jëbi nguur ne da nga toog nguur mbindee fam yàlla. adduna bi yëpp buñ defoon bolog ne dañ lay xeex ba bur falu bu bu dee yàlla bind na sa jëbi nguur kenn moom laa teree falu mm. yàllaa ko wax du samay wax xulillaahu maalikal ba aaya ba jeex kon natt yi lum tar tar tar bu yàlla bindee na dana falu benn mbindee fam yàlla mënu koo teree falu parce que gis nañ fi ñoo xam ne ci koso lañ génnee dam dam pale loolu am na fi am na ci ay saxaaba am na ci ay am na am na ci lu ne mais daal natt yi bari na mais daal na gëm ne jafe-jafe boo gis ginnaawam la ciy tegu mooy yomb-yomb. d'accord waaw alors 2024 li ci des euh, bareetul jamono ji euh, ñu bëri ñu ngi laajte wala ñenn ñi ngi laaj ndax Ousmane Sonko dina nekk candidat am na ñu nga xamante ni ci wàllu bi yoon wax nañu ni ba tey jii candidat la ndax euh, contumace bi daal dinay jeex tàkk quand même mais yow ci li la yàlla may ndax gëm nga ni Ousmane Sonko 2024 dina bokk ci ñuy déposer seen candidat. waxoon naa la fii ne ci jamono ma ne la gisuma mbindeefam yàlla mu ko mu ko mu ko mu ko mën a tere bokk ci élection yi. yaa ko waxoon tey bu ma yàlla wanaatee tamit ne manta bokk ci élection yi ma gis ko boo ñëwee ma wax la ko. faaw nga seet ko. mais ba ni may wax ak yow gis-gis bi ma yàlla ma a ma ma wanoon moom laay waxee. Hmm. mooy gëm naa ne mën na bokk ci élection yi 2024. d' accord waaw Khalifa Sall ak ki nga xam ne moom moo di Karim Wade wax nañu ni jamono ji mën nañoo bokk. waa ñooñ nag moom man xaw ma wax dëgg yàlla aji. ñooñ moom man du ma leen du ma leen sax suivre. vraiment man nit moom. nit moom man daal lu ma ci xam. Mm. politiciens comme ni Ousmane Sonko yee askan wi. képp ku àndoon moom moom nekk naafeq wala nekk gëmoo Sénégal Ousmane Sonko weer na la ba senegal yëpp xam ne yow mi gëmoo dara. alors nañu ñëw ci manifestation. jaanam yëpp wàcc na. d'accord waaw Ousmane Sonko léppam wàccoon na ñëpp. Mm. waaw d'accord ngir ñu tàggatoo foofu ñu ñëw ci manifestation yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ak yàqu-yàqu yi bus yi nga xam ne tàkku na fi euh, cocktail molotov yi nga xamante ni ñu ngi koy wax ak kagul yi nga xam ne wax nañu ne jamono ji wax nañu takk dere képp ku nga xamante ne kagulewu nga bokk ci ay manifestation jox nañ la autorisation nga tiire seen kaw mm. ndax ànd nga ci ma ci de man sama xalaatu bopp sama gis-gisu bopp mm. ma ci lii moom lii de xew ci réew mi moom nguuram Macky Sall rek la tey boo compter diggante 2012 ak léegi li ci li li fi takk deri rey ci ay manifester ci ay doomu aadama mënoo ko compter. Hmm. kon daal lépp daal boo ko dàqee dang nga naan ci ndey mili gi la. parce que lépp lu mu bëgg mu jeex mu jeex lépp bépp dogal bu ko neexul du am ci ci ci réew mi. Hmm. man daal dama gëm ne Macky Sall ci boppam askanam wi jaral ñu ko dara. waaye ndax kuy xëccoog nag kuy xëccoo ak Macky Sall Macky Sall dana la may dara quand même parce que ñoom ñoo taxaw ne du ñu ñaan Macky dara. kuy xëccoog. ak Macky Sall ndax Macky dana la may dara. ndax moom mooy président bu Sénégal. waaw may dara gi moom comme kuy xëccoog moom ndax daan la may daraam du mhm. may dara. Macky Sall moom yàllaay maye mais du Macky Sall. Mhm. waaw yàllaay maye mais comme lii ñu fi gis ni yëpp jamonoy 2012 nii la woon dafa taxaw askan wi jàppale ko xeex la ko ba yàlla dogal mu jot réew mi comme bu mu fàtte démb fàtte moom dafay xajul sax mhm. fàtte aji xajut fii Macky Sall na bàyyi xel démb xam ne lu dul jeex amut de. waaw ay ayca euh, am na solo bu baax a baax dañuy ñëw nag ci sa wàllub liggéey ginnaaw bi ñu nga tënkee ci kàddu yu am solo yooyu alors ñu bàyyi la nga fàttaliwaat nit ñi wax dëgg ci lañ la gën a xamee borom résultat yi muy wàllum listixaar euh, jamono ji nag yaakaar naa ni kenn dootul waxati mbërëntaan nga ci ndax mbër nga ci am nga lu nga xam ne yàlla may na la ko ci te gis nañu mbooloo bi nga xam ne moo la topp jamono ji boo ñu doon fàttaliwaat wàllum listixaar lan mooy njëriñam ak lan la mën a fànk ci doomu aadama waaw seet nag aji mm. euh, am solo bi mu am solo ci doomu adama defe naa ne leeral ko sax dafay jefe mais daal nit ku ne nii oto di dawee ba ci kanam dam di garage ñu xool matu bagage yi yàqu yeeg changé yëpp yu sew yeeg yooyu doomu adama di nun nga war di defee entretien sa bopp mooy yenn saa yi boo demee tuuti war nga taxaw xool sa bopp xam say sarax xam say kii def ci donte dooy sangatu sax mais xamal say sarax da def ko parce que loolu dafay dimbali doomu aadama mm. parce que newoon naa la sarax moom dafay fànq ba day fànq dee mbiram seet nekkatuñ ci gan mbiram li saxaara nekkatuñ ci gan ni may faral di waxee képp ku bëggul ma gis la ci ñaar yooyu bu ma woo bu ma seetloo bu la neexee sa mën nga ma bañ a seetaan mais képp ku ma xoolal bi hawlillaahi wa quwwati bu dee ku nekk ci jafe-jafe la dinaa la wax sa jafe-jafe yi lan moo ko waral ak nan ngay def ba mu ko ak yow ñaar rek a fi ne. lu ko waral ak yan sarax ngay def ba jafe-jafe yi ko mën na ne ci jàmm alors ñu ñëw ci njëriñu sarax tamit ndax bokk na ci lu nga xamante ne ñenn ñi dañ koy jaawatle sarax ak génnee lu la neex lan mooy njëriñu sarax ci doomu aadama waa aji sarax nag njëriñam bëri na lool boo ko doon wax tey mën naa ne fii la fanaan mm. sarax lu am importance ci doomu aadama la neewoon naa la fi keroog sarax dafay fànq ba day fànq dee yenn saa yi da ngay gis koo xam ne danga koy xool la mu leer la la ne kii ci ay jafe-jafe lay dugg nga ne ko defal nangam ak nangam mu def ko yàlla dogal loola da ngay gis koo xam ne fanam wi dalay leer na fan wu jeex la yor nga def loo ko ay sarax yu tegu ci yoon yàlla yokkal ko ay fanam loolu yëpp am na mm. mais bu dee ku xamut ku jàngut jaahil day toog di commentaire di da wax lu ko neex mais yooyu yëpp sarax moom njëriñam ci doomu aadama loolu buñ ko xamoon nit ki dox chaque jour te xamul ay sarax ñi nga xam ne dañuy xëy maanaam di génnee sarax bu leen neex moo xam ñi génnee tàngal wala mburu te xamuñu seen sarax ndax gisoo ni mën na dolli gàllankoor ci seen kaw waaw dañuy làmbatu rek làmbatu rek lañ ci lañ ne parce que am na ñoo xam ne heure bu ñuy ñoo dàq saraxe mi ñoo gën am na ñoo xam ne dañuy wax du ma xëy te saraxewu ma te kenn digalu leen ko <laughs> loolu moom mayee laa koy tuddee rek aji sarax moom li ci gën mm. mooy nga xool ku doy mu ne la génneel nangam ak nangam nga def ko mais lu dul loolu nag da ngay nekk di maye rek. Mhm. di maye sarax moom aji boo ko defee vint quatre heures war naa am effet ci yow. effet benn moo xam soxla ba nga doon wax mu faju wa ilaa gàllankoor ya nekkoon ci yow mu dañ. ñu baal ñu bàyyi la nga tënkal ci wàllum am doom ak kayit hmm. ndax yaakaar naa ni loolu bëggoo sax di ci wax lu bari ndax résultat yu am solo yi nga xam ne am nga ko ci waaye ñu bàyyi la rek nga fàttali ñu ak ñi lay seetaan. waa aji loolu moom defe naa ne alhamdulilahi rabbil alamin ay mbiram am doom ay mbiram kayit yooyu moom yàlla ñu ci suturaal lool sax nee naa la léegi nekk fi di détail sax yàlla xam ne du lu may bëgg parce que jot bi mayeetu ko waaye li ci am solo mooy ci tënk mooy aji moo xam ku bëgg doom la jigéen ju sëy ay ati ati at mënoo am doom seet ma mm. moo xam jigéen ju jëkkëram wan ginnaaw mm-hmm. wan ko ginnaaw ti faa mm-hmm. ma mm-hmm. moo xam góor gu bëgg dib dimbale sa askan bëgg dimbale sa famille amoo dara te am nga yéene boobu ci ñoom seet si moo xam ku ne bitim réew bëgg ay këyit buntu boo fëgg mu tëju ñu yàgg laa wax ay sarax yoo xam ne heure boo ko defee affaire yi di gën a dëgër seet ma ci yar ak teggin ma dimbale la te yàlla tax mm. man sekkere bi may faje aajo yi toogee ko jëlewu ma ko ci sàmba jëlewu ma sama wayjur moo ma ko jox aussi moo ma ko xamal mm-hmm. képp ku ñëw yar ak teggin incha allah bi xawla wa quwwata ma fàcc sax alors ñu bàyyi la nga fàttali ñu ak sangat bi nga xamante ni wax dëgg yàlla yàgg nga ko dëgtal askan wi waaye ñu bëri nee nañ gëj nañoo gis euh, nga fàttali leen sangat bu am solo boobu sangat bi aji defe naa ne mi ngi jëm Amérique ah. lii ngay gis nii mm. sangat la boo xam ne nee naa la ku ko am ku ko am at mi li muy rëy rëy comme at mi démarré at bi nii moom lañ koy sangoo comme weer wii ñu ne lii gis nga ku ko am mm. lii yëpp benn cangat la kenn nit moo ko moom. li kayit yi di bari bari. benn càngat kepp la. d'accord lii ku ko moom. ak foo man di ci réew mi. bi xawlillahi wa quwwati ak foo man di ne. yàlla dana la jox wërsëg ba nga foog ne yow moom. sa wërsëg moom nu muy ñëwee daf lay daf lay yéen. dana ñëw a ñëw ñëw a ba nga foog ne yow rek la yàlla bind. muy muy wërsëg muy secret bu ñu am ndigal. ñu koy defal ay kilifa nag. du liggéeyab como coxor coxor du liggéeyab como. Mm. ay kilifa lañ koy liggéeyal. yaa ngi dégg. bëgg sa aajo faju bëgg yor lu dul jeex ci mbiram alal boo ñu seet ñu jox la. macha allah parce que lépp ci kaamil bi maa faral naa fi kitaab yi nga xam ne wax dëgg yàlla day fay ñu koy bindal ndax mm. saa soo duggee ci këram yaa ngi ko fekk mu yor xalimaam bu am solo bi la rek nga tàggatoo Cheikh Ahmed Khalifa euh, ak li nga xamante ni moom moo di umute ak bayre ndax bokk na wax dëgg yàlla ci liy dimbali aw askan ñu bàyyi la rek nga tàggatoo foofu ci tënk waaw soxna aji ñi ngi waat bu baax a baax ah. di taggatoo mbokk yépp di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin ku tëju mm. ku tëju ba mënoo am dara mm-hmm. soxna aji seet si ma ci yar ak teggin ma tijji say mbir yaa ngi dégg kuñ liggéey kuy toog sa yaram di diis kuy toog sa ya sa bopp di métti yaa ngi dégg kuy toog sa yaram di ngay sentir loo xam ne mosoo koo sentir sa yaram boo ma seet si ñu jox la luy saafara. wàllum rab ak ku dëgg bu liggéeyu jàmbur. rab moom soxna aji loolu moom loolu moom. ñun nga dootoo ci waxati waaw du ma du ma ci waxati. parce que ku xam suñu wayjur xam ne fa lilaal xam ne réew mi amul koo ko mën ci rab. waaw ay liggéey kuñ liggéey ak yooyu yëpp dañ koy dindi. Euh, li ci am solo mooy jox nañu benn secret. Mm. ñi indaale ko ci jamono jii muy Bayre Njaay. sama wayjur moo ma ko joxal boppam. nee naa la doomu mës a dégg man ma joxe secret YouTube wala ma joxe secret TikTok. xelaatum parce que secret mooy lu ñuy nëbb. kon tukki bu yàgg bi da ngaa dolli jiwaatoon. ah dolli cere yokk ñeex yu bees <laughs> macha allah. jox na ma loo xam ne suufu xorondong lañ koy boole. Hmm? suuf si xorondong si mi ngi ci man bépp jaaykat bu ko am am place. del wis boo xëyee del wis booy wàcc. mooy xorongolo ndong li muy rëñ di dem di ñëw. loolu clients yi noonu la ñuy demee di ñëw. saahiran aw baatina. macha lu gën a ñàkk solo ci mi. Hmm. billahi lazi laa ilaha illa boo ko wisee dana jar. kon nit nañ leen dimbale. Hmm. ci dem jàngi xam-xam. aji lu ne mën nga koo tappale ci àdduna. Hmm. mën ngaa tappale ba am kër. mën ngaa tappale ba am oto. tappale ba am xam-xam ko ko fenn. déedéet ku ci ne foog ne da ngay tappale ba am xam-xam bis dana ñëw yàlla weer lu du yàgg. lu kon nañ dimbale askan wi ci seen i bëgg-bëgg nañ dimbale askan wi ci seen i soxla coow li lu muy bari bari bari résultat la ñuy xaar ci sëriñ. Mm-hmm. man de maa ngi sant yàlla de. jërëjëf képp ku ma jëflanteeg. képp ku ma jëflanteeg. sa aajo moom mooy faju na rek ku la wóolu ajo bi faju jërëjëf sant la bu baax jaajëfal la mm. Cheikh Ahmed xalifa ñas borom résultat yi bàyyi la rek nga tàggatoo ak sa euh, mbégte wala sa xarit yi nga xam ne saa su nekk rek ñoom ñoo lay bàyyi xel ci euh, Dakar live waa maa ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm mm-hmm. wax ne àdduna moom rek la ñun ah. duñ toog mukk siñ mbir di dox ñu ñàkk wax li am li xew ci réew mi te mu naqadi ñëpp muy injustice bu bon ak jaay doole mi fi ne ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla képp ku may seetaan rek yàlla na faj sax waxuma sax ku ma woo ku may seetaan mm. di may xool bëti cofeel yàlla na yàlla faj saajo saahiran aw baatina barke yonte barke Cheikhu Tidiane asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërë ngeen jëf sant ko bu baax jaajëfal ko Cheikh Ahmed Khalifa Niass borom résultat yi la ko askan wi duppee ñu koy jaajafal bu baax a baax sant leen yéen itam jaajëfal leen jox leen rendez-vous bu yàggul dara ci beneen daje bu ñuy dajeek moom jërë ngeen jëf